jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak yéen tey nag mu nekk jotaay boo xam ne euh, dañu koy jëmale ci lépp loo xam ne nag jëm na ci 8 mars bu ñu ko waxee nag mu nekk bis boo xam ne euh, dañu ko jagleel jigéen ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci àdduna bi loolee tax na tey jii ñu fa yéene waxtaanee lu ni mel waaye tamit dinañu waxtaanee rôle jigéen ci société. bi nga xam ne euh, moom la ñu nekk ngir loolee dinañu ci dalal ki nga xam ne nag moo di imam Assane Diouf nekk imam waaye tamit di jàngale euh, ci institut Al Azhar bu Ndaam waaye tamit dinañu ànd ak euh, soxna Assousila mu nekk journaliste waaye itam tey xam naa ñaari casquette la fi ci liggéey bi nga xam ne moom lay def en tant que jigéen mais aussi dinañu waxtaan itam loo xam ne jëm na ci fànn googee soxna Mame Fatou dina ñu ànd ak moom itam ci jotaay bi ginnaaw loole rek kon xam naa imam dañu lay ak ñi nga xam ne nag ñoo lay seetaan ci 24actu point com. asalaamaaleykum euh, wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan 24actu di leen ndokkeel baax a baax di leen sant baax a baax seen usine di rafetlu baax a baax dalal bi euh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yow tamit ci wuyu si Euh, soxna Asou Sylla yow itam jox la nga nuyoo. bu baax tey ziar suñu imam bi di imam Hassan ñu koy ziar bu baax baax di ziar bi nga xamante ne gën ko gën a xamante ne mooy suñu moom la ñu dëgmal allah. moom itam nekk taskatu xibaar ci kër gi euh, te itam nekk jigéen bu jàmbaar rek soxna si ñu ngi mu bàyyi la yow tamit ngeen yow mi lay seetaan. daal di eh, e e e eh, boo mm. eh, xam ne dañ koo jagleel jigéen ñi daal di ànd ak xam se nag xalaat bi nga xam ne ñu xam moo di El xam moo di Asila wax nañ ko léegi muy 8 bi mu nekk bis boo xam ne dañ koo jagleel jigéen ñi l'islam moom ban gis-gis la amee ci jigéen ak jërëjëf euh, sëñ Ousseynou maa ngi nuyu bu baax a baax di dalal bu baax di gan yi nga xam ne bokk nañu émission bi euh, waaw jigéen ñi day lislaam da ko fonk ndax da ko fonk en tant que yaay fonk ko en tant que rakk ko en tant doom ju jigéen euh, te wane ko ci lu bare bare bare xëy na nag doxinu jamono moo waral ñu wutal ko jigéen ñu wutal ko bis ngir di ko ci màggal loolu nag euh, fekk na lislaam moom wax dëgg jox ko ci bu yàgg yàgg yàgg ndax fekkoon na fi mu fekkoon amoon na ay société yu bare bare yoo xam ne dañoo jëloon jigéen di ko di ko noot di ko di ko ci la jëlaat jigéen tegaat ko place am ne ko bu ngeen rey nit la comme ñëpp dafa war di doon comme ñëpp dafa war di euh, yaay la boo xam ne mooy jigéen mooy yaay li nga xam ne tey nit ki faaw mu wut ngërëmam bu bëggee du ko aljanna te jigéen euh, ñaareel bi itam lislaam am na saar boo xam ne jigéen la ko tuddee Euh, euh, yàlla joxe na misaal itam ba tey exemple ci jigéen ci alxuraan ak bu bare bare day wane rek ne du yàlla jox euh, dayoon wax na itam àdduna yëpp bu dee ay bagage bagage ba gën mooy jigéen bu baax mooy soxna su wax kon kooku joxaat na ko ceeb waxaat na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko saa bu nit amee ñaari doomu jigéen yar leen yar bu rafet danañ dox diggante moom ak safar loolu lépp day wane ne kon jigéen am na importance bu mag a mag ñoom it def ay rôle yu mag a mag ci lislaam ak lu jiitu sax lislaam ndax gis nañ ki jëkk a gëm mooy Sayyidatuna Xadija ci jigéen na kon suñu Ousseynou lu may dina waaye loolu bu ko waxee mm-hmm. am na koy màggal kon fekk na lislaam jox jigéen wàccuwaayam bu yaatu yaatu mm-hmm. euh, kon yaakaar naa ne su ko bañ daal mm-hmm. lépp lu jox jigéen gëddaam lislaam du ko bañ fekk rek mu tënku ci loo xam ne yàlla na Hmm, voilà xam naa dinañu dikkaat euh, ci euh, naka la ko lislaam gisee ci ni koy màggalee ci Sénégal wala sax mën nañ wax ni koy màggalee ci àdduna bi asu ñu ne 8 mars tey en tamit euh, ban sentiment ngeen ci am. waaw Ilaah Sow jërëjëf bu jigéen dañ koy sargal surtout le 8 mars bi nga xamante hmm. nga xamante ni naa lay kenn ku nekk rek nga nekk jigéen doo nga ci mën a gis sa bopp doo nga ci mën a yëg sa bopp baax a baax. Hmm. nag euh, ci ban côté nga koy yëgee sa bopp mooy jigéen comme ni ko suñu ustaas waxee sànq rek dafa doon benn moment bi nga xamante ni mën naa ne kenn jox ko gëddaam kenn ko cër bi nga xamante ni ko suñu borom subhanahu wa taala jox ndax dafa toll benn moment sax nit ñi ñuy jàppale ñoom soo amee doom mu nekk jigéen sax dañ ko war a jël ñu ray ko wala ñu koy def loo xamante ni euh, lu doy wàll nekk ne doon loo xamante ni dañoo ñàkk jigéen fayda trop. Mm. te dañoo xamul ne jigéen nag mën nañ ne ñi nga xamante ne ñoo leen fi tudd ñëpp boo xoolee tey jii mën nañ ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mm-hmm. kooku tey jii mën nañ ne soxna su baax ko moo moo mooy nga xamante ne moo ko indi jamono mm-hmm. nga ma ay ñoom Si ay ñeneen baax ñi nga xamante ne dañ leen di dégg mm-hmm. kon jigéen nekk na loo xamante ni war nañ ko mën a jël guddaam bu baax a baax a baax rawatina si jamono ji ñu toll ndax nga xamante ni ñu koy def si seen loolu sëy loo xamante ne ñu ngi koy def ci lu baax ak moo xam jamono yu njëkk ak jamono yi nga xamante ne mm-hmm. ko Oustaz waxee sànq tamit ndax xarit dafa wax mm-hmm. ay ba marchandise la te bi gën ci marchandise jigéen bu baax kon nga nekk jigéen mm-hmm. soo déggee jigéen dañ koy sargal donte ñi koy def dañoo tànn bi nga xamante ne mooy dimanche bi mais jàpp naa ne jigéen moom boo xëyee chaque jour rek dangaa war di ko sargal mm. ci li nga xamante lay doxalee ni mu yoree ak njabootam mm. ndax boo xoolee mën nga ne en général góor ñi ñu bari dañuy yor seen i kër mm. njaboot yi ñoo leen di aar ñooy def ci li nga xamante ni bëri ñoo koy def si yi kon sargal boobu nekk na loo xamante ni dañ ne du sens maanaam mérite la soxna Mame Fatou Kébé euh, sargal bi soxna si wax na ko ndax euh, jigéen yëpp ñoo yeeyoo waaw jàpp naa ne moom jigéen ñi ko yeewee sax daal ndax jigéen ñi dama defe ne jigéen moom bu ñu ko mu nekk loo si ne suñu borom moo def moom muy magasin bi bari ay secret yoo xam si ne nekk dafa daje ci moom euh, sax na sax man boo dee jàpp sax dama naan bi marché bi dañu ko jox waaye ñu jigéen ñi bis yëpp war a moom mm-hmm. ndax maanaam ay jàmbaar lañ saa su ne mm-hmm. ba tax na maanaam bis bi daal def naa du sens mérite mm-hmm. la ci ñun du sens mérite gis nañu aussi tamit euh, dëkk yu bari ak ni ñu koy feetee xëy na ñun bu dee Sénégal gis nañu ni ñu koy célébré ba ci sax yenn ci rajo yi dañuy jox jigéen ñi ñuy Euh, la góor ñi daan def ñu koy def xëy na loolu ku sekk ni nga ko gisee euh, ndax l'islam moom nii ñu koy euh, célébrer ci Sénégal ndax l'islam ànd na ca maanaam xam naa ne l'islam moom lépp lu baax rek da cee ànd ndax moom day diine joo xam ne maanaam mboolem jamono yi mën naa dëppoo ak ñoom waaye mboolem nit ñi itam mën naa mën naa dëppoo ak waaye nit ñi koy def ci Sénégal nag. dafay am lool jigéen da koo moom ndax société bi ñaari. ñaari ñaari parties benn bi góor la benn bi jigéen la góor dafa am wàllam jigéen am wàllam ndax bu dee l'islam ñu xam mooy membre xam waaye xamul euh, nu ñu tuddee euh, émancipation xaw ma mm-hmm. wala musaawa yamale ñu mm-hmm. mu xam mooy kenn ku ne daf ko àq te jigéen ba ba jigéen ba tey mooy mooy am doom mm-hmm. loolu wàllam la naka noonu dem góor am na ci loo xam ne moom rek moo ko war a def saa bu ñu jëlee rol yi nag Euh, jël góor wàllu góor jox ko jigéen jël wàllu jigéen jox ko góor problème day daal di am man gis ne léegi dañu ëppal ci benn côté. waaw kon xanaa parité bi àndul ci wala. waaw parité l'islam li mu xam mooy ni ma ko waxee léegi waaye tey doo gis ku njool ak ku gàtt nga nga nga jël kenn ku nga jox ko 5 mètres. Hmm. kon da am koo xam. Hmm. kenn ku da ko jox lam yelloo loolu mooy maanute loolu moo wuutale hmm. diggante parité ak maanute. l'islam mu am ci la xam nga xam loolu parité. kon daal parité ci Sénégal. parité ci Sénégal euh, am na wàllu yoo xam ne mm-hmm. mën a day naa liggéey kenn ku ne sañ naa dund. Mm-hmm. kenn ku ne sañ na yu bare bare mm-hmm. waaye euh, am na ci loo xam ne kenn ku ne bu fa àggee nag jigéen dafa am wàllam. am loo xam ne góor am wàllam. wàllu laaj naa léegi soxna Mame Fatou ban jigéen la l'islam war a sargal. waaw l'islam moo xam nga ñëpp lay sant ndax boo jublu rek day day forcé bàyyi bi mu tudd la euh, ji euh, tur bu baax am wu na sant ci ci ci moom boo ko defut boo ëllëgee dana la ko laaj hmm. waaw kon ñëpp la fal léegi nit ki nag mooy wàcc boppam kon ko nit ki nag bu fekkee ne yàlla da ko bind hmm. oh, ne nañ ko fonk nañ ko defal lii te sax yëgagu dara hmm. su demee ba ca kanam mu wàcc boppam ba agsi ci euh, bàyyi ma boobu moom moo toroxal boppam waaye sax moom du du toroxal kenn kon ku am suñu borom moo wax ne wala xar karam naa bani aadama képp kuy bani aadama rek suñu borom teral na ak wax wax euh, wax ne laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwiim nit maa ko bind ci gën jaa rafet melo melokaan mi moo gën a rafet ci melokaan mi maanaam euh, ni ni ko yàlla bindee maanaam bët yi fi mu nekk bu wàccoon musiba néegu musiba kon ni ko yàlla bindee daanaka dañ naan impec mm-hmm. bu nekk da ngay mel ni kare sax nga mel mm-hmm. kon yàlla ñëpp la teral mm-hmm. waaye nag nit ki mooy wàcc boobu ba foo xam ne xëy na waru nekk bu fa nekkee nag. Mhm. kon bu wàccee boppam foofu nag. lu ko dal moo ko teg boppam. ci xeetu jëf yi ñu def ay jëf. voilà mhm. bu fekkee noonu daa daa doon jigéen. Mhm. te xamul boppam. mooy di def ay jëf yoo xam ne xëy na lislaam da koy da koy aaye. wala da koy tere kooku mu ngi wàcce boppam fi ko yàlla waaye jigéen ku yàlla fonk la koo xam ne bu xamul boppam mm-hmm. vraiment teraanga ji ko yàlla jox day gën di yokk mm-hmm. day gën di yokk mën naa dem gën a kawe malaaka yi mm-hmm. su wàccee boppam dem day a gën a suufee euh, ci lépp loo xam ne jëm na ci teraanga boo xam ne yàlla jox na ko jigéen waaye fii ci Sénégal ndax euh, ñun tamit respect bi ñu war a jox jigéen des na bu ñu gisee jigéen ñoo xam ne xëy na dañ leen ci sëyee wala ak yu am na si ñoo xam ne jigéen ñi maanaam nañ leen war a joxe seen kër dëggantaan joxuñu leen ko. kon dafa des ndax jigéen waaw gëdd bi dafa des lool lool. muy ci biir néegu sëy maanaam ci muy pour ci biir néegu sëy boo ko dee xool dafa mel ne ci la ëppee. ndax jigéen suñu borom da koo def maanaam ñu ne daanaka xel bu gudd ba tax na. maanaam moo waral mu fekk si góor. ndax góor dafa nekk maanaam loo xam si ne dañoo yaakaar na mat na. ñu yëkkati ko jox ko jigéen. pour mu war koo gunge ci xelam di ko wattul ci xelam ni lu baree baree bari waaye dangay gis ni jigéen ñoo xam góor ñoo xam ne jigéen ñi sax moo leen di gën a mën a tane ndax dafay fekk se ne moo la war a mën a tane jigéen mooy kota mën a yërëm nga xam se ne léeg mooy baaxoo maanaam muñ ba dax na day topp maanaam wàllu muñukaay daan ah lii kat bañ ma ci dugal dañ ne moom dama war a muñ mm. euh, say muñukaay ba mm. léegi nag muñukaay boobu nag boo ko jëlee def ko euh, di muñ nga war a muñ yëpp mm-hmm. boo fekkee dajegaak góor boo xam se ne xel ma góor ko na ko war a muñ a mm-hmm. da koy jàpp yaakaar ne fitnaal boobee ca la war a dëkk mm-hmm. te jigéen nekkul ku ñu fitnaal mm-hmm. jigéen dafa war a nekk koo xam se dañ ko war a mën a yërëm waaw war ko mën a teete war ko mën a am ci yoo xam se ne yu yu baree baree bare mm-hmm. ndax jigéen suñu borom dafa def ne maanaam dafa nekk koo xam se ne dafa mm-hmm. bi na nga koy naxee da nga koy moome ci lu baree bëri waaye amaana tamit na nga koy bund ko sonal ci kay ba yàqu xelam yàqu xoolam ba tax na maanaam seen sëy boobu dafa mujj di ba ñu koy gis ay def na Mhm. Astou justement wax na loolu gis na ne jigéen ñi bëri xëy na euh, dañuy bëgg ñu jox leen ay poste de responsabilité xëy na toll góor ñi fànn parce que dañuy wax comme ni ñu koy waxee ñaari loxo yi takk tubéy te mooy takk sees est mën na nekk ñu tollale góor ak jigéen ci Sénégal. loolu mën naa ne loolu yoo xamante ne du mën a nekk la. Mhm. ndax euh, comme ni ma ko waxee sànq rek ñun suñu mën baax ñi nga xamante ne ñu juddu woon. Mhm. Euh, soo jaaree laa ne soo mënee ne ki nga xamante ne moom mooy wàññeeku mën a sawaaram. mën nañu ne dafa nekk boo xam ne bu jàngal topp ànd la. te wax nañu ne sax moom daana jàngal suñu jaay alquran daana wax ne sax daana sol bu mel ay jàllaa bi dañuy jàngale alquran karim yor daara te loolu nekk na loo xamante ni loolu lu am am solo la te dañoo toll moment bi nga xamante ne parfois nit ki boo tollee nekk ci néegu sëy wala nga yaa xam moment bi nga toll rek nekk jigéen di yoo ne da nga nekk di jàngale wala yoo yoo dañoo jàpp ne comme par exemple moment bi mu toll jigéen daal lu ko war dem ca marché ba ñëw togg añ togg reer pare pour mm. la bi nga xëy say soreewul xam-xam bi ak jëfe gi loolu tamit dafay nekk loo xamante ni lu am am solo la mm-hmm. na boo xoolee waykat bi koy wax naan maam Asta Waalo nday soxna jaara bu dul korom moom kenn du sampi daara mm-hmm. kon loolu dafay misaal ci ne mm-hmm. jigéen ak foo mën di nekk rek dangaa war a yor responsabilité bi nga xamante ne ku la gis ku nekk jox la jër jox la dëgg. Mm-hmm. loolu nag dem na ba feeñaale ci soxna Diarra nga xamante ne moo nekkoon doomam. Mm-hmm. mu yoroon ko jàngal ko tarbiyee ko li nga xamante ne moo raw ci moo war ci moom yëpp mu nekkoon ko. Mm-hmm. ndax boo xoolee soxna Diarra mën bi nga xamante ne ci lay demee ci la euh, war a demee kër. mën as bu tuutee tuuti la. boobu ma juumee yaakaar naa 15 euh, ans lañ wax ne ci la am. la am dem nag liggéey fa liggéey bu rëy boo xamante ne. te koo xamante ne mën nañ ne 33 ans mën nga boo xamante ne da ngay gis ñoo xamante ne ko ay quatre-vingt-dix ans dañ ko xaaj bay jege di liggéey lu mel noonu. Hmm. kon doon nañ loo xamante ni ay royukaay lañ. Hmm. te olof dafay faral di wax ne fa fa ndox daan taa ba léegi soo demee fekk fa tekk tekk yaa kon tamit duñ xool ne kat jamono bi changé na damaa war a changé ànd ak moom. Hmm. donc il faut tamit ñu roy ci suñu mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiitu woon. te suñu jaara li nga xamante ni mën naa ne moo ko yóbbul ko sëñ Maam Mor Anta Sali kenn ku ci nekk ci ñun nekk jigéen doon na loo xamante ni loo war a gën a mën a bàyyi xel la ndax ak sababam dem ci kër googu ki nga xamante ni moo di Euh, soxna maam Anta Ndiaye euh, nekk wàllu maam seen Anta borom gaa war a Daaru Salaam hmm. ba ne moom moo waral mu ñëw ci kër ma kër sëñ maam Anta Sali ndax hmm. ba mu ñëwee këreewul hmm. nekk na ndaw fekk fa yeneen soxna yoo xamante ni soxna sëñ maam Anta Sali leen mais këreewul xoolul ne ñii kat ñoo ma fi jiitu xoolul ne man kat damaa doon xale këreewul dam jàngoon yëpp da ko doon jëfe ci biir kër ga di jàpp di jiddu di woote def lépp li nga xamante ni moo ko war boole ko di yar ay njabootam ba suñu borom may ko tey jii li nga xamante ni moom la am mu sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul euh, Euh, ndax tolloo gi ñuy tolloo leen jigéen ñi ak góor ñi ci Sénégal. dañ ciy ànd. waaw am na ñu koy defee de ànd ko ci moom. ndax li dafa am lu góor am am lu am góor jigéen. jigéen mm-hmm. góor war naa jigéen comme góor. Mm-hmm. sañ naa liggéey. Mm-hmm. kenn tere euh, am na ak liggéeyam. ak liggéeyam xam nga am na ci liggéey yoo xam ne nekk na ci góor waaye nekkul ci liggéeyam. mais li ñuy wax ne comme bu dee ñaari place la góor tël benn jigéen tël benn. suñ ko defoon. ko defoon tey xam nga tey góor. Hmm. lislaam moo dana góor a yor kër. Hmm. moo joxe dépense. Hmm. moom la wax. mooy def lu bare ba kër gi yëpp. laaj ñu ci dara jigéen. bu fekkoon tey dañoo jël place yi góor yëpp jox ko jigéen ñëpp. góor ñooñu tey kër gi moo ko yor. xam nga ay jafe-jafe yeneen la ñuy daal yoo xam ne. ndax xam nga jigéen bi ñu ko ne toogal ci kër gi. dañoo wax ne góor ko war a ba ci miraas tey bu la boo nga fekkee da ngaa yor ko un million kii jël deux millions. jigéen ñi day jël un million kenn sant ko ci dara. Hmm. boppam sax dañ koy yokk. Hmm. kon yooyu ko a leer tëral tax mu def ko nag. Hmm. mooy gerte da koy jox wàll. ba ñu nag liggéey am na ci liggéey yu bari yoo xam ne da ko war a jigéen. Euh, donte bu fekkee rek bu bu bu jigéen li ëpp solo ci ci ci moom. mooy euh, ñu mel ni yar yar ak njaboot. moom fi ne lu mu ci man euh, kenn mënu ko am na taxawaay yoo xam ne. li ci jigéen man commerce. c'est-à-dire dinaa xam ne commerçant la am na liggéey yoo xam ne daal da ci jigéen man mm-hmm. man da caa doon patron sax ay góor yu bare la mm-hmm. kon bu ci wàllu góor mais nit ñi bañ rek mooy ñu jaatal ko yàq ba nga xam ne dañ góor fii jigéen fii mm-hmm. su ko defee ay jafe-jafe mooy mooy juddu te tàmbali nañu. ñu bare ba ndax gis nañ léegi ñu koy toll ji PAM yi léegi kàddu ba 4 millions 500 tonnes. waaw <laughs> <laughs> bu fekkoon ne. <laughs> Eh, vraiment xam naa loolu sax xaw ma lu ko waral. waaye bari na ay causes xëy na. bari na ay waaye li ci am solo mooy góor ñi daal bu ñu amul liggéey amul xëy. Mm-hmm. takk ci jigéen ñi. waaw mm-hmm. ah, dana gën a am. waaw saa imam imam eh, ba léegi ci point boobu buñ la ci bàyyi gis nañu ni wax nga. cest à ce que nekkul ne tubaab yi xëy na ñooy def ci euh, bopp xel jigéen ñi ba ñu war a diir mbagg góor ñi. Mm-hmm. te pourtant tubaab yooyu mel na ni ñoom ñoo leen xañoon loola. Mm-hmm. est-ce que kon du gée fi xam nga loolu bu ñu euh, xam nga li waraloon jigéen ña di liggéey ca France. Mm-hmm. ñoo demoon ba góor ña jeex. ndax euh, guerre ya fa jaar dafa am sabab. guerre ya fa jaar dafa jeexal góor ñi ca guerre ba. ñu dem ba usines yi la tëj. jëlee génn liggéey. Hmm. xam nga loolu ñun ñun amuñu amuñu problème boobu. Hmm. waaw ak it ñoom seen culture bokkul ak suñu culture moom. Hmm. vraiment ndax nit tam boo jël da nga jël lépp wala nga bàyyi lépp. wala bokk nga jël bu rafet moom. waaye ñun dañuy jël di jël ba nga jël lépp ñaareel bi mooy ñaari société européenne ak euh, ak africaine bokkuñu. kon bu ñu jëlee seen yëpp te ñun bokkuñu ndax euh, tubaab ba tey dañuy def mooy góor day def jigéen def ñu leen luye seen yëpp def xaw ma. communion du bien mm-hmm. yu bare bare yoo xam ne ñu. mesures mm-hmm. yooyu ñu ñoom. Mm-hmm. duñ ko jël. Ah, bu defee ñoom sañ nañ tey nga am benn jabar ci ay kayit waaye amaale ñetti ñetti ñetti muutu ñeneen ca ca ca du am problème waaw ñu xam nga yooyu yëpp a wax rek mooy la sëñ euh, dañoo ñu xëy xëy bëgg a xam te fi ñu jaar di fa jaar di fa jaar ay étape étape ba agsi fi ñu agsi ñun nag xaajiguñu agsi ko buñ dee toppandoo noonu ay jafe-jafe la ñu dund. jafe-jafe moom mooy benn ñaareel ba lislaam lu ñu wax. Mm-hmm. soo ko xamee soo ko xamul. Mm-hmm. xamal na si bi mm-hmm. moom du xool ay intérêt par benn benn waaye day xool. intérêt général général bi. mu mu ne nangam ak nga xam ne lu mu ci def rek. ay jafe-jafe mën naa mën naa mën naa jóg mën na sa cee débat Euh, ndax euh, am na ci loo xam ne xëy na ay ay texte la bu wóor am na ci loo xam ne nag mm. am solo mooy lu wóor dëgg la ñu koy di nga xam justement balaa ma demaat ci euh, Mame Fatou gis nañu wax nga ne ay jafe-jafe mm. yow imam imam day xëy na xam dara ci ñi nga xam ne ñooy ni ñaat nañu dundee ci Sénégal yan jafe-jafe nga nemmeeku ne am na ci jigéen ñi waaw man de li ma li ma seetlu mooy benn bi mooy wax dëgg yàlla dëkkam jafe na ci ñoom. Hmm. dañ ciy dégg kenn ku ne daal ñaanal ma am. am borom kër mais aussi tamit sax du ñoom seen comportement ak ñi mujjee génn nii ah est-ce que xam nga taamu xam nga xam nga tey li ma koy wax li ci waral lu ci bare bare. Hmm. sàmm day topp faatu faatu topp dem ba dem ba topp. Hmm. kii nii maanaam kenn bu ci ne doo doo doo da ngay seet nga teg sa moom xëy na ma ngay teg bët kii itam. xam nga euh, defee loolu benn ci ci jafe-jafe yi jafe-jafe ñaar bu lañ bëgg moo amul li bëgg ci si jigéen amul mooy ku mat sëkk amul mm-hmm. da ngay da ngay tànn ko tànn mm-hmm. koo xam ne daal na nga mën a nekk mm-hmm. ji euh, jigéen itam bëgg góor bu mat sëkk amul da nga da ngeen di ànd moo mottalante bu defee ka ngay teg euh, ci sa kanam day waral ngay xool koo gis rek ne moom du moom du moom du moom ba mujj ña doon naan du moom nga toppaleen far doo doo doo leen jël doo leen jël bu defee kilifteef itam dafa tax léegi amatu tax jigéen ñi balaa ñoo yóbbu nit ci ci seen i jafe yooyu daal. Hmm. wàllum sëy xëy na maa ngi bari balaa ñoo yóbbu seen papa muy xam dara. Hmm. fekk na ñoom pare nañu. Hmm. waaye ku ñu bëggul seen papa xam ci jafe bi mooy jaaxle bu tëj kàpp. koo ci gis ndeysaan mu ngi bëgg kër. baax na bëgg xëy na te mu mën a am gi daal bari na ci ñoom. wax dëgg yàlla ñu mën a leen. ndax dañu leen a toog ci lexey góor. mooy kan bàyyi. wala loxoy góor muy hmm. rakk wala mag wala hmm. loxoy góor muy maam wala borom kër kon ñoom dañ leen a tegoon ci ci ay conditions yoo xam ne ay góor ñooñu nag ñu ko waxee sax na dañ ko mate hmm. suñ tubaab dana woon bu ñu boolee ñaar dañ ñaar ñetti saat bëggante war a ànd góor gi tane jigéen talente boobu nag wax seen soxna soxna <laughs> euh, boobu nag jigéen ñi dañ fay nekk ku ñu muur tuuti andil la ko vraiment andi euh, ko sa kër yow sa yiwu dañoo leen ci bar dañ ko indi yow nga bëgg faa nekk bu ne nii nga di nii hmm. ngeen di ngeen di ngeen di jokkalante ko xamul xamul yaakaar war nga xam ne kii nga indi hmm. vraiment yaa daa bàyyi baayam hmm. ni jaayam bàjjenam yaa war a doon baayam doon bàyyi doon lépp <laughs> bu defee loolu te jafe-jafe yi loo xam ci jafe-jafe yi la bokk voilà justement moom Fatou euh, am nga loo bëgg a wax waaw oustaz laa bëgg a laaj ci li nga xam te ne waa ci imam li nga xam te ne moom la fi dañ rawee wàllum parité ndax dañuy jigéen ñi ñoo yem ne d'accord nañu moom du ko masayam muy jiite imam waaye léegi dafa mel ne suñu jamono yu njëkkee léegi maanaam ci góor ñi niñ téye woon bi soxna yi ndax léegi maanaam njëkk góor ñi ni ñu ko di jiitu waaye léegi si maanaam bu xefee di tax bu jigéen ñi nangoo sonn sax ñu ci bari amaan sax waxuma la kii jiital waaye bu nangoo sax bu jigéen ñi nangoo sax ñu bàyyi leen kër gi waaw léegi nag loolu ba tey nag jigéen ñi kon buñ taxaw yoo wote bari buñ nangu ni maanaam ñëpp jigéen tax góor ñi jigéen ñi dañu bay seen waar bu waaw loolu moom am na solo. xam nga mm-hmm. xam nga tey mënoo wax ne góor ñëpp a baax. Mm-hmm. mënoo wax ne jigéen ñëpp a baax. Mm-hmm. mais euh, booy wax rek am na saa su ne am na ñu taxaw seen wàll. seen waaw kenn ku ne am na seen bi loolu dama lay dama dama jëng am na ci góor ñoo xam ne vraiment dañu bëgg lu yomb ko ci wax mën a damay bëgg a ah, pare boo xam ne day hmm. loolu sëñ bi musiba am na <laughs> di nga musiba am na hmm. maanaam góor dafa war a yëg ne moom hmm. boo amul euh, ab multi milliardaire yow yaa ko war a c'est-à-dire dafa war a gëm boppam ci wàll kon kon kon kon loolu. Hmm. góor daal bu ko yàlla bindee dafa war a jël ay responsabilité bu hmm. xam ne dafa war a yor kër hmm. bu fekkee dafa bëgg ndax dañ ne lu la yor mottali sa dépense. mottali sa baax. loolu la jigéen moom. loolu loolu mooy mooy loolu ma lay tontu fekkee ne jigéen ñoom day def. moom mooy def yor boppam yor nangam. ah boo ko neexee nag mu ne nag nañ ci waxtaan. kon daal góor bu ñu déggee dafa war a mën a liggéeyal boppam bañ a dépendre ci benn jigéen. bu dee tane loolu la dafa tane ci xelam ak dépense bi. looloo tax. Mm-hmm. mu mën a am baatam. Mm-hmm. dégg nga waaw voilà waaw ba tey waaw foofu laa jëmaat ba tey ndax dangay gis maanaam coow yu bari di nga gis ci kër gi maanaam ba nga ba ngi coow yu bari ndax tey jii man tey ndax góor gi moo la war a mat wala tey jii maanaam ni nga waxee rek jigéen ñi maanaam lu ñu la defal ci kër moom boo leen ne la ah taxawal kat maa la def ne nga est ce la maanaam ci góor ñi lu ci bari jàppewuñ jigéen ñi nañ ne war a jàpp bari da yaakaar bëgg a jël nag seen cër kilifa waaw loolu loolu moom ànd naa ci mooy boo deful la war a def boo defee la war a def ah vraiment da ngay bu di digle rek tere kër gi nag du xuural baax waaw oustaz bu fekkee ne yàlla daf laa daf xëy na koom-koom ba demul noonu soxna si ëpp la koom donte yàlla mooy maye mm-hmm. léegi foofu euh, kooku am na ñoo xam noonu lañ def mais da ànd ak rigueur rek ak mm-hmm. yërmaane xam nga tey koom-koom sa soxna mën naa am lu jeex waaye yow nga bañ ko dégg man doo ko teg dara mm-hmm. ñaareel ba li ngay da ngay góorgóorlu ak euh, loo mën sa kem kàttan ba nga xam ne yow ñu kat bàyyi ko nga xam nga doo toog ci kër di ñu lay ataayal di la di la xel di la xel nga xam ne daal yaa tànn loolu bu ko dafa war a jóg ñëw indi bu amee indi bu indiwul daal di nàngam hmm. lu mu ko defal it mu wan ko moom moom daal jigéen lu mu def ci kër baax na bu fekkee moo ko def ci coobare may mooy warul hmm. waaye bu fekkee da wax ne da ko war nag hmm. mooy daal bu fekkee ne moom jigéen dafa am devoir boo ko boo ko waral boo xam ne yàlla waralu ko dana am droit yow tam lu mel ni li nga am jafe-jafe yooyu nag moom moo bari ci askan wi ba nga xam ne moo tax jigéen ñi léegi tegatul góor ñi baat na mu yàlla baal da ngay da ngay xëy dem mu xëy dem parce que dépense bi yéen a a boo xoolee jigéen ñi comme par exemple suñu borom bu la tax ngay euh, ko jox gëdd bi nga ko war a jox doo ko jox xàq bi nga a jox ndax loolu yaakaar naa nit ku loo hmm. na aaya i borom maanaam wala tam si aaya hmm. suñu borom di wax naa maanaam bu dox ci kaw suuf ba yaakaar ne ngaa xotti suuf waaye bu yëkkati ko tamit ba yaakaar ne ngaa suuf moom ci loolu tamit dafay misaal ne nit ki ak daraja bu la suñu borom mën di jox doonte sa borom kër yaa ko ëpp alal yaa ko ëpp xaalis lépp yaa ko ëppale mm-hmm. war ngaa mën a xam ne kii kër mooy sa borom kër te fii ba ilaa yow jii moom mm-hmm. doo doon kilifaam mooy doon sa kilifa mais tamit dama bëgg nga indi ay leeral ci góor ñi nga xamante ni comme par exemple nekk seen kër papa ak fu mënti nekk daal ñoom mën nañ ne sa ñoom dañ leen faa yoon ñu yor seen soxna te ñoom jigéen bi gis rek teg ko bëgg a takk di indi la si indi si biir ni par exemple dañuy ñoom takk seen soxna ñëw rek leeralal leen ki ñu yor par sëriñ bee ma ko jox. waaw ñu xam ma <laughs> xew xam naa ne gis nga wàllum wàllum takk soxna. Hmm. démb rek maa ngi ciy wax. Hmm. boo xam ne. nit ki hmm. raison yi tax muy takk soxna. loolu lu xaw a lu xaw a lu naqaree xam ne lu xóot a xóot xëy na am na ñoom dañu topp seen bakkan lu ñu gis rek mm-hmm. jàpp na dañ la war a takk indi mm-hmm. te mënuñu yoruñu ñaar ba war a amal loolu am na mm-hmm. mais mais tey ma laaj la léegi ki nga xam ne tey dafa gis soxna daal ñoo tax ak ay moyens yu ndaw ak ki nga xam ne day bàyyi soxnaam ci kër gi te nag moom moom semaine bu jot ma am ku bees ku tàgg c'est-à-dire ma bëgguma warale mais mais tey. Hmm. ci bari yooyu. Hmm. ci jigéen hmm. ak ci góor moom góor gi nga xam ne yàlla da ko may mu am ñaar ñett. une raison yi tax muy am léeg-léeg. ne am na ci yoo xam ne ko mën a te ña ko defut mooy tubaab bi dañuy am benn soxna mais nag. dañuy am yeneen cooy la yeneen kii nga xam ne kon am na ci yu ci nekk yoo xam ne. <laughs> <laughs> d'accord léegi góor daal. kenn ku ci nekk. dafa war a jël ay responsabilités xam ni ko yàlla sant mu def ko. am jom. di liggéey. am dépense bari yërmande. Hmm. góor boo a hmm. di baale. Hmm. di jéggale. jigéen dañ koy jéggal. mais oustaz ba digaa boobu lan ngay wax tamit ci comme par yi nga xam ne mën naa ne duñ defal seen soxla su seen ko bëggoon ne toog exemple léegi bu lay takk nga nekk si kër waaye jur gis naa na nga meloon ak bi nga ñëwee ci man ni nga mel loolu est moom su fekkee dafa jàpp ne dëgg-dëgg kii nii lu ko war la jàmm mu di ko ndamoo ci kaw soxnaam ah oustaz loolu teraa ngay àdduna bët. waaw waaw waaw ñàkk fekk man damaa gis ne. Hmm. Eh, hmm. góor lu mu def ci soxnaam. Hmm. kooku wóorul sax di ko xalaat kooku mën a wax ndax warteefal ko. warteefal ko loo def ci moom jël di wax dañ ne soxna yàqal. loolu la yàq mooy lu mu bëgg rek. nga nekk nga nekk bis boo nee nii kon. bis bu demee ba ba fay ba dem seen kër. Hmm. nga xam ne fi mu nekkoon jërul wax. yow kay hmm. teg ko ci condition yu baax rek. Hmm. foo ko ko léeg-léeg sax lu ne rek. lu dagal lu ne nga def ko. xam nga kooku bu nekk fa nag léegi moom xam nga am na jigéen yoo xam ne ngeen baal ma. Mhm. moom boo ko defal noonu ñu jàpp ne moo la toll moom moom daal di daal nangam nangam nangam nangam. Mhm. nga bàyyi ba xëy xëy dana daa fay te defoo ko daal. gis nga bu fa amee semaine. Mhm. weer ko jël si mooy dem ci de xam naa ne. saytaane bi góor sama jigéen dafa jigéen daal fay nangam day dellu. bu delluwaatee dootul. <laughs> voilà loolu. secret góor la. voilà c' est <laughs> euh, justement moom Fatou mi dikkaat rek euh, ci bi nga xam ne dañ ko wax ne dañ ko jagleel jigéen ñi naka nga gisee jigéen ñi xam ne euh, ci entreprise lañ nekk di liggéey xëy na ñu bëri duñ leen comprendre parce que bu dee boo nekkee ci entreprise mu di que yi fii ban gis-gis nga amee ci côté boobu ak euh, jàpp da nga jàpp ne moo ci war a am. waaw bi ma am foofu ba tey jigéen moom war nekk nekk. ñu ci entreprise bi ak a doon nekk jigéen ñi dañuy ko wàcc bi nga xam si ne yow moom nga ni rek war nga xam jikkoom nan nga xamee jikkoom ci ci maanaam jàngat ngay am ci ndax tey ñaar bu yàggee maanaam war ngeen a mën a xamante ndax yow mi nekk sa borom maanaam am na yu kàddu yoo xam ne bu ñu ko waxee ci moom bu fekkee ne xam nga ko mm-hmm. da nga ne ah man de diw mm-hmm. lii du ay waxam mm-hmm. même ku jigéen même yow yow mi borom këram nga xam si ne moo lay tàggu di génn war nga xam ci moom benn jikko boo xam si ne tey jii bu ne la ah lii kat moo ko def nga ne nga mën a taxaw ne du moom mhm. ndax maanaam kenn ku nekk sëy dafa war a nekk loo si nag kenn ku nekk da war a am loo jàngee sa morom mhm. jàngee du mooy lan mhm. maanaam kenn ku nekk di a ndax tax nañ ne sëy dinañ ko tànn ci ay jikko ak yeneen jikko yooyu maanaam lu ngeen di gën a yàgg da ngeen ndax xëy na tey jii nit ñi mënul leen a tàmm tàmm ci borom ngeen xamante waaye lu ngeen di gën a dugg di gën a yàgg asamaan ngeen sëy ni même gore yi bu comprendre tey jii am na loo xam si ne dañ ngir yàq seen sëy mm. waaye tey ji kenn ku nekk war nga xam nan la sa soxna taxawoo mm. waaw ndax jigi ndax góor mm. maanaam boo nekkee sa soxna am na soxna yoo xam ne dañoo bari na koo da fay taxawee bañ ba yaa taxaw te goro yi mënuñu koo xam gi soxna yi taxaw bu baax ñu defee ne maanaam borom kër yi ñu ne lu moom kat lu mu yëkkati moom la ko jox te fekk na amaana liggéey boobu yi ñu def di ca góorgóorlu moo leen ko mën a may est ce la ngay dundal sa borom kër yi muy sutura di sant est nga toog ak goro ci kaw donte jege ne le dafa am loo xam ci biir mm-hmm. ne ba kenn ku sa morom mm-hmm. man bi euh, xëy xam ne dañoo am jigéen daal raxas ndab yi nekk ca waañ ba mais warul nekk femme la xam ne dañ koy jànkonteel mm-hmm. am na ñoo xam ne maanaam loolu lañ jéem a def ci seen xel am na jigéen ñoo xam si ne maanaam buñ peese yi ña leen bëgg maanaam muy seen i borom bëgg leen a dëkk te fekk na maanaam léegi te léegi li ñuy wax léegi sëy xale yi mm-hmm. ñooy sëy ndax xale mm-hmm. na moom mën a xam la jam xelam dëgg tax mm-hmm. nga bëgg koo jiitu ci ko jigéen moom ko ni ko sëyal ci kër gi war a toog wërta defal def marché nga war a def di ko toog bu dëgg bu dëgg fóot ah te léegi ne maanaam dañuy am lu ñu mel <laughs> tey ji buñ la gisee nga sol soluwaat ñu ah, mu am def ko ci boppam lu ma defal lii lu defal naa te moom wërta mën a génn liggéey tey jii lu mu am ci borom këram nga ne ko waaw yow loo am moom nga jox mm-hmm. sa jabar ji ni ko ko jàpp avant sax ñoo xam seen sax ca la dem sax ba noonu ko maanaam mm-hmm. nga xam ne mooy sa bor te loolu lépp maanaam rek mm-hmm. ci jigéen daal man la ma gën a a jàpp mooy yow mi ko yor ji ma la xam ji koom boo ko xamee ci jikkoon amaana maanaam fu mu mën a dem hmm. ak fu mu la mën a tàggu di nga xam moom moom kan la hmm. ndax man jigéen damaa defe ne dafa nekk valeur boo xam si ne maanaam doonte ne maanaam yow amoo woon borom kër sax hmm. war nga mën a amee sa bopp nga xam si ne complètement ak fulla ak dignité boo xam man ko koo yore sa bopp ba foo mën a taxaw tey jii waxuma la waaye da nga xam ne sa borom kër gën laa fonk sa bopp boo ko defee rek maanaam di ngeen mën a voilà jërëjëf sama maam Fatou imam xam naa waxtaan bi la jërëjëf bëreetul waaye xëy na ñu ngi waxtaan jigéen ñun ñi nga xam ne ay célibataire lañu baara ak bari sax bu ñu doon tànn soxna ban jigéen la ñu war a tànn. waaw jigéen de ñetti ñetti jikkoo ngi nii boo xam ne boo tànnee. yaa ngi réeré imam. ndax xëy na loolu moom na. waaw loolu jafe-jafe la maanaam jigéen ñeenti qualité la am yoo xam ne moom la ko soxla. boo gisee ñu ngi ñaareel ñett mooy doon yaay. doon xarit doon mindaan. doon jabar. sax loolu a faram-fàccee. waaw doon yaay. Mm. mooy góor dafay am fu ko toll. a gën xam ne dalaa bëgg rek sans dara xam nga tey a néew a. a moom gën a jafe a xam nag daa dem ba. Mm. ñàkk bii. Mm. ñàkk bii waaw loolu moom dafay xam ne. waaw ba benn bi xarit xarit nit dafay toll ci dañ ne derrière xaw ma sax. Euh, waaw yaa xam lan. waaw eh, grande dame moo nekk Sall. mu ko nekk si ginnaaw. mën a fay xel mi la. Hmm. ak taxawaay yi. boo ay jafe-jafe. foo mën a nekk ma taxaw sa sa côté. Hmm. kooku boobu itam. ñu hmm. jafe-jafe. ñetteel bi mooy. bindaal xam nga tey jigéen dafa war a moom kër ba nga xam ne tey. du waxuma ay raxas yu def. mais moom kër ba nga xam jigéen mooy borom kër. bu kër neexee jigéen. donte da nga wut say bindaal da ngay wut naan parce que góor gi moom bu xëyee day nekk ci liggéey. donte da nga am bindaal mais dana ko gérer gérer boo xam ne li ñu ci kër gi aajal lay doon kooku manin mm-hmm. man man kër mm-hmm. kooku tam mm-hmm. ci ci qualité yi ndax boo ko deful baawu nit ki tam ami ganam nangam nangam nangam ak muy moom yu bare bare yooyu dana tax nit dama wuti soxna beneen boo xam ne vraiment ku yaatu ku social ku nangam ku nangam ndax léeg-léeg mu tax mais ñeenteel mooy jabar moo ci gën a doy waar mooy koo xam ne daal moom bu xoolee ba soxnaam. Hmm. dootu soxlaa koo kenn. Hmm. ku mu rombati mën na mën naa. mën na mën na mën na <laughs> dañoo dañoo dañoo dañoo lii bët de. maanaam am na góor ñoo xam ne seen bët moom yamale. waaw waaw waaw loolu bu feebarul. bu hmm. feebar noonu la waaye. waaye li ci am solo. mooy jigéen dañoo bëgg mu toog foofu. liñ lay tere ci biti lépp lañ leen digal ci biir kër. cest à li nga tere ci biti ci bu génnee ay ay yëpp dama ko jël ci biir kër bi da loolu ñu bare bare vraiment dañu waaw dañuy nekk ci mm-hmm. Mm-hmm. waaye góor dañ koy téye mm-hmm. téye gi mooy daa fexe ba ba jël xelam ba moom fu mu toll moom moom xelam ak loolu xam ne bu génnee sax yàq te wàcc waaw ah, waaw loolu nag moom vraiment am kii la loolu moo jabar maanaam xëy am na ñoo xam ne nag xëy na ñoom neexul ñoo tënk waaye daal li ci am solo mooy boo amee sa loolu itam mm. bul forcé ndax jigéen ñi bari dañuy def nii def nii mm. waaw maa ngi nekk kii xam nga jigéen ñoom dañuy ñëw mm. dem benn waaye mu ne man di nii rek laa def ba téye sama soxla sama borom kër nga dem daal di copie collé fekk yow moor boo ko def nekk ku nekk say bët jafe-jafe yooyu day am voilà kenn ko defal lu koy téye mm-hmm. say mii lu koy téye boobu def boobu def baara la koy <laughs> <laughs> mais euh, qualité yi nga xam ne lim nga ko ndax yombati na nag ci jigéenu Sénégal yi tax dëgg yàlla yomb néew néew néew la ci hmm. jigéen boo xam ne dañ dajal moo tax rek léeg am na kilifa bu ma ko wax jiw mooy sama soxna jiw mooy sama jabar hmm. soxna kon dafa am différence entre soxna ay jabar soxna ay qualité lay doon hmm. boo xam ne tey ay taxawaay mooy li doon wax léegi te kër gi kër gi moom bu génnee kër gi tas ak koo xam ne moom. Hmm. defar na waaw <laughs> moom booy ah, présenté moom ngay présenté. moom moom moom ngay moom ngay moom ngay ah. hmm. présenté. Ah, justement xam naa da koy ñàkk complètement waaye da ci am dara rek. xam hmm. nga kenn ku da nga am dara dara mais am ko ba nga xam doo koy téye. doo koy téye loolu loolu moo jafe. Euh, jërëjëf ñu noonu Astou xam naa ñu ngi ci euh, <laughs> jotaay bu mujj bi rek. Euh, lan ngay wax avant ñuy jeexal. waaw li may wax mooy comme ñu gën a rafetalaat diggante bi rek. te xam ne ñaar yi moom moo ko composé muy am ma war a raxma. ndax mën nañu ne cofeel bu ci amul wala yërmande bu ci amul rek. lu bëree bëri bëri loo xamante ni moom lañ bëgg duñ ko am. surtout njaboot yi nga xamante ne moom lañ war a yor ay yeneen la yeneen ci biir kër gi ndax sëy nekk na loo xamante ni mën nañ ne mhm. euh, ki nga xamante ne dafay dem di sëy ki nga ne dafay dem bu mhm. ci nekk mhm. rôle boppam la te bokkul bokkul ak sa morom ndax bu fekkee dangaa jub moom pour seeyi moom dangaa dem pour doo di nga a pour sa njaboot a am lu baax bu fekkee ne kii kat dafa am alal alal laa ko dem tamit soo demee ba xamante ni alal jooju ci moom bu tamit da ngay sonn mm. kon ñun jigéen yi mm. buñ xool ne kat ñoom am nañ gëdd bu ñu leen jox bu baax a baax ba tax ñu yëkkatiku di wane cër boo xamante ni mën nañ ne mm. borom kër moom ak noo mënti demee mënoo koo sut mais usa ñu dëkk ci comme par exemple li nga xamante ni ñu wax ko jaar àqu dëkkandoo ndax bu fekkee àqu dëkkandoo mooy sama gis-gis mën naa ne bala nga dem ci sa dëkkandoo yi te ñi nga bokkal kër ci nga war a jëkkee benn sa borom kër sa goro ñi nga nekkal à part loolu nag lu ko génn mi. ba ci mm-hmm. xale yi nga xamante a sax dañuy ñëw di fa ci yow. Mm-hmm. naka naka nga leen war a téye ak mm-hmm. jigéen boobu nan la war a mel. waaw lu am am solo. Euh, xam nga li ñu naan sàmm àllar wala baax ci mbedd mi. doy waat ci kër gi ci kër gi gis rek la. Euh, jigéen dafa war a dafa booy tàmbali li ñu naan euh, béy ci ca wéewu. wéewu tànn waaw maanaam nit dafa war a baax ci kër gi ba ñëpp di ko tànk. muy muy muy roogalaan di roogalaan ba mujj koñ bi mm-hmm. mujj dëkk bi mujj réew mais mm-hmm. am na ñoo xam dañuy baax lool ci bëccëg vraiment mm-hmm. ay bëccëg bi waaw loolu di naan taarootu kaani xëy loolu loolu am solo comme ni ko waxee rek noonu demee bu liggéey mooy borom kër ci yaatu bi ci yërëmi ci ci ci yaatal bi ci ubbi xar kanam ci teg fu fu lekk war a tege fu naan war a tege loolu xam-xam la éducation la parce que daf dañ ci bind yaatal suñu xale yi ñu ci bare ndax euh, li ñu wax ni yar ñu ci yar ba nga xam ne ba muy mm-hmm. am juróom-ñaari at wala lu ko kii lañ koy tàmbali ko yar mm-hmm. ci nan lañuy accueillir gan mm-hmm. naka lañ koy ubbeele xar kanam nga xam ne gan bu fi ñëw bu bëgg a dem dégg nga yooyu yëpp nan ndar ndar ndar yi am nañ ci wàllu bu yàlla yàlla bu tàgguma da ngay dem vraiment da ngay envie toog ci kër te toog ci kër ñoom <laughs> xam naa bala ñooy jeexal ñu ci ñëwee ñoom ñàkkuñu ndax soxna Diarra boo ñu doon dikkalaat ci soxna su kenn si. ok loolu moom kenn mënut a wax euh, hmm. ni ba noppi wax soxna Dia ndax modèle la boo xam ne. Hmm. benn maanaam modèle la ci mu doon yaay. Hmm. ndax Seexu Xadim daana yu baax yi. Ibn Daam ba Sëñ Tuubaa nga xam daana taxaw sax dinaa fi guddi te xamu ko te tare ko daawu teel kon loolu kon yaay yu baax la. soxna su baax la ndax koo xam ne dañ la ne rek téye ma sàkket bi borom wax la ko daal di dem. nga téye ko ndax bàyyi moom pour bàyyi ji ba fanaan fanaan fa vraiment kenn foofu foofu toll dafa dafa kat ko tey. mais Issa foofu nga xamante ne fi nga toll boo ko doon comparé ak jamono jii yow lan ngay dénk. Ah, dañoo ñàkk repère euh, bu ngeen seen borom kër dénkoon aw sàkket mu gis que duñ ko delloo moom dañuy tolloo ni. Hmm. moom daal léegi moom. waaw hmm. defal naa la defal ma defal xam nga loolu nag nit ñi gisee euh, borom kër gi xam nañ ne sang lañ gisoon. Hmm. mooy ñu doon jaam. te boo bëggee mu doon sob jaam da ngay doon lu simple la bu dee gor gis boo bëggee mu delloo la ko def ko jaa def ko sang rek su yàggee bu dee gor da lay daal yow daf da lay def buur ba ñu naan moom da ko moom ko di da ko di da ko di fekk rek sa rafetal moo ko loolu mooy loolu moo gën ngay dem ci ay sët ngir ñu bare ba gis nga nit ki da ngay ba am xol loolu nag du luy travaillé benn fan ñaari fan ay ay da ko travaillé ba moom ko téye ko hmm. kenn du ko lu may mën a wax mu ne man kay mbenn rek. ñu naan waaw loolu kenn ku di waaye boo demee ci sëñ bi nag mu def yëpp. Hmm. mu def nii bopp bi. yaa ngi yaa ngi rek mu defaat bi. ok dëgg la moom Fatou kon xam naa nag eh, waxtu bi jot na nga tàggoo ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan xam naa li ñu war a développé bëri na mais xëy na dañu amaat occasion ci café du soir ngir eh, détaillé yeneen incha allah rabbi. waaw dëgg la waaye hmm. tontu ko sama laaj. waaw ah, vas y waaw waaw amul benn problème rapidement très rapidement. waaw ndax dañoo gis ne li nga xam te ne jigéen ak ci àddina ak li nga xam te ne maanaam moom la ko suñu borom teg ci ay coono yëpp ba ci li nga xam se ne moo leen yóbbu woon sax dañuy wax ne jigéen sax da koy def di jafaral ñàkk ba gis ne jigéen góor yoo xam se a ta xasee ba takk seen soxna ñu commencé maanaam am ay doom yooyu gis maanaam day mel ne dañuy daal di commencé décrasé moo leen waral di maanaam sax ci yeneen jigéen te amaana maanaam jigéen ba ngay wër ci mbedd ma amaana sax soxna ba koy takk na njëkk googee taal ba mu nekk ci kër ga boo ko doon moom la ngay yëkkati di ko def dee toppatoo noonu mu gën a baax gën a jëkk am jigéen góor ñoo xam maanaam gën naa xóot loolu ndax day mel ni nit koo xam daal àddunaam képp lekk naan képp la ko def xam nga nit mënu fee toog rek bis ma naan ginaar ginaar dara am na yeneen occupation mais naka noonu tam ci wàllum jigéen nit ki dafa war a am yeneen occupation yu bokkut ak di xool rek ku ku mel nangam rek dafa am yeneen lu leen boole. Hmm. maanaam cofeel hmm. ak yërmande mooy mooy mooy gis nga nit ki boo xoolee xasee ci am ci moom cofeel hmm. am ci moom yërmande dara di am na ñoo xam dañ dem ba doon am kii soixante dix ans kii quatre vingt ans ñu mën a toog nii ñu waxtaan di nga gis ne gisuñu keneen gis nga paa bi gisul beneen jigéen bu am trente ans loolu tam mooy mooy dëgg dëgg bëggee bokkut ak ba ca des mooy nun baax moom la ko mën a wax bokkuñu nun baax moom day def nii rek day bëgg kii suba mu mu mu doxaat kon loolu dàgg waaye lu sincère. kon mhm. loolu dañ koy jëmbat. Mhm. dañ koy suuxat. effectivement kon foofu. dëgg la dëgg la ci ci rafetal moo koy suuxat. Mhm. def jigéen ñi ak takk jigéen mu dem ba ndeysaan. am ñu ñu mel. bëggoo ko. donc non non. <laughs> voilà voilà kon as ma jox la rek nga tàggoo waxtu bi jot na moo tàggoo nga tàggoo ak ñi xam ne ñooñu doon topp ci 24 actu point com. solo la. te ñu koy wax rek bu nekk kon nga fàttali ko suñu soxna su tedd si soxna Diarra dafay dem ci moom ak ñu mel ni boo xoolee nekk na koo xamante ni daw la ñëw ci kër goo xamante ni borom kër ga daara la kër goo xamante ni mën nañu ay nga fa. nga jëf fa loo xamante ni sa jëf ko fàtte. ndax doo ngay daal wax naan soxna Diarra da xàmmeewul waxtu nawet ak waxtu noor. ndax xeeti ñam ak xeeti lekk xeeti naan yi ñu daan yoo xamante ni doon na loo xamante ni loo am am solo la. Hmm. nekk koo xam ne daan jug fajar bale kër gi def lépp lu war a def. te mu ngi ji ko war yëpp mu di ko def. Hmm. dem sax ba dugg si biir teen ngir ngir jox. jox dugal borom sa tala ngir mu hmm. jàpp hmm. lépp mu doon loo xamante ni mën na ne toogoon fi di ko wax fii ba suba hmm. du mës a jógee mais doon di ci gën a waxaat bu baax xamante ni a roy kon tamit nit loolu loo mën ci dund ak lu mu neex neex neex neex war naa mën a tax tamit wuta mën a tax nga bàyyi li nga xamante ni tamit fàtte ñi nga xam ne ñoo fi daan baax euh, ñi ngi ki nga xamante ni yaa ngi bàyyi xel di sant suñu oustaz bi imam Hassan di sant El Hadj Ousseynou Ndiaye soxna Fatou Kébé ak Baara Lo Serigne Saliou ko mm-hmm. ñu leen di bu baax di leen gërëm di sant képp nga xamante ne yaa ngi bàyyi xel seen site internet bi di 24 actu mm-hmm. di leen jox dig daje ci yeneen di jotaay mm-hmm. mbokk yi jërë ngeen jëf ok moo tax 10 secondes rek nga tàggoo waaw émission bi ñu wax ne maanaam allah neex na nag ndax xam naa ne. imam xam naa beneen yoon a ñaax maanaam comme que tey ñi la. Mm-hmm. a yërëm jigéen a xam ne ko a mm-hmm. a a mën ne di xam mm-hmm. ndax dañ naan waaye ku yor sa doom yaral ndax xamoo fa muy jëm ëllëg kon ñu gën a góorgóorlu a soññante. Eh, te joxe dig daje ci beneen émission. incha allah incha allah imam ma jox la nga tàggoo yow. waaw xanaa di leen santaat baax a baax. di leen santaat gan ñu tedd ñi wax dëgg yàlla. soxna Kelle. ak soxna Sylla. di leen sant baax a baax di sant caméraman yëpp. mbokk yi ak spectateur yi. di leen baax a baax di leen wan ne yàlla defal daal. dégg toog. ndax bu ñu néew réew ay baat yoo xam ne mën na sa cee jëriñu defaraat suñu toog. man mi dëgg la ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm muy euh, imam Assane Diouf euh, nekk jàngalekat ci institut Al Azhar bu Ndaam ñu ngi koy sant bu baax ci euh, woyof bi nga xam ne am na ko ngir wuyu si fi nga xam ne nag moo di jotaay bi xëy na mbir yi gàtt na waaye xam na jombul dinañu am beneen occasion boo xam ne dinañu ko gën a yaatal loolu lépp rek dafay wane xam-xam bi nga xam ne am na ko ak woyof bi nga xam ne am na ko ba tax na bu ñu ko waxee rek ñu bëri mën caa jëriñu ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant Baye Sall waaye tamit euh, sant ngërëm ñu jagleel ko ki nga xam ne nag moo di Soxna Awa moom tamit nekk jigéen bu jàmbaare boo xam ne xëy na tey bu ñu doon tudd jigéen ñi gën a jàmbaare mën na ko cee boole waaye sant tamit Astou la moom itam ñu ngi koy sant bu baax di gërëm soxna Mame Fatou Thiaw mi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon jotaay bii di leen jox euh, dig daje incha allah ci yeneen i jotaay jërë ngeen def ba beneen